asalaamaaleykum dal leen nag jàmm dàkkum élection locale yi xeeñ bu baax a baax waa Sud Quotidien li tax ñu wax loolu le ba bind ko ci seen xët bu njëkk mooy yéex-yéex yi nga xam ne moom la ñuy nemmeeku ci ndorteelu liggéeyu jëmale ci wàllu audit fichier bi teg ci it nan la ñuy def daal ba def ay xayma ci processus électoral bi bu ñu sukkandikoo ci ëttu yéenekaay bu groupe sut Communication yooyu le ponk nag moo doon sàkkuteef yi gën a fës yu ko jégi ngir ñu mën a bokk nag ci dialogue politique bi nga xam ne moom la njiitu réew mi Macky Sall sàkku loolu it bokkoon na ci loo xam ne nemmeeku nañ ci woon ab déggoo ci ñëpp ñoo xam ne ñooy yëngu ci wàllu langue politique bi wante saytu bi ñu war a saytu fichier bi maanaam audité ko ak it fexe ba xool ci dëgg-dëgg nan la processus électoral bi di demee ci suñu réew ba fi mu toll nii daal gisuñ ci ab jéego suñu naataango yi fare ci avenue Bourguiba di xamle ne USAID moom nangu na ngir dugal ay koppar jëmale ci wàllu audit boobule wante ba tey jilee daal mënul teggat ci ki nga xam ne moo ko war a amal te mu war a bokk ci réew mi wante nag du kenn koo xam ne moo koy wax li mu def maanaam ab indépendant la war a doon ci jamono jooju it Sud Quotidien di ñu fàttali ne Union européenne moom it waxoon na ne pare na ngir génne ay koppar jëmale ci wàllu processus électoral bi wante ba tey jile daal dara sottiwu ci looloo tax suñu naataangoo yi ne daal fi mu toll ni daal bu ñu moyul dàqum élection locale yi ci la ñu jëm njiitu réew mi war na sax si ba bés ñu jëm génn benn décret boo xam ne day yokkaat mandat wu ñi ne ci gox-goxaat yi bu ñu sukkandikoo ci Sud Quotidien ñu wax ba tey ci wàllu politique ak les échos bi jox kàddu gi Mamadou Dieng mu jiite arc en bokk ci FRN moom nag nee na ku jigi daal si ndëgg sërëx lañ leen dugal jëmale ci wàllu dialogue bile li ko gën a métti nag mooy liggéey gi jeex na wante daal lañ ci doon séentu gisuñu ko ci te nee na nag li ci gën a garaaw daal mooy ab xaajaloo bu fës la ci nemmeeku di waxtaane beneen mbir jëmale ci wàllu ministre bi ñu dénk wàllu xëy mi di sàmba si ak secretaire général bu CNTS FC di Cheikh Diop bi nga xam ne dafa taxaw temm fa yéene jàkkaarloog moom moomulee Cheikh Diop di jox ndigal bépp section ñu taxaw temm ngir jàkkaarlook jëwriñ bi li ko dalee samedi bi ñu jëm li waral coow li yëpp nag mooy ministre bi di Samba si daal ñoom waa CNTS FC daal dañ ko joxoñ baaraam tuuma ni baxaw jong la lënkool te baxaw jong boobule umpul kenn ne jàmmarloo bu métti la nekkeek Cheikh Diop ñu wax ci wàllu suñu usines yi di développement industriel maanaam na la def ngir mu gën sukkaliku ndax dañ jëm ci jeexitalu jafe-jafe yi nga xam ne moom lay jànkoonteel ki samp boobu laaj mooy waa 24 heures bi dellu si ci conseil des ministres bi doon amal démb ci àllarba bi ñu xam le ne njiitu réew mi di président Macky Sall mi ngi soññ secteur privé bi ñu ñëw taxaw ci wetu gouvernement bi ngir gën a mën a suqali lépp lu jëm ci wàllu industrie ci mim réew ci nemmeeku ci lii ñu duppee Barça wala Barsak nee na ndaw yi lenn rek moo leen ñor mooy jël looco yi dem biti réew ngir tekki fa wala ñàq seen bakkan bu ñu sukkandikoo ci Abim Ndiaye di ab psychologue nag nee na li waral loolu yépp nag mooy discours bi nga xam ne ñiy yëngu ci langue politique bi moom la ñuy amal dugatul benn yoon ci nopp ndaw yi ndaw yooyu nga xam ne ci jàkkare la ñu nekkee ñu wax nag jëmmalee ci firnde yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci mbedd Conakry yi ginnaaw giñ fa amalee élection présidentielle dañ cee ànd ak vox populi bi dellu si bu baax a baax ci ñi nga xam ne ñoo ci ñàq seen bakkan gouvernement bi ci juróom-ñeent seetlu daleen moom ni li ko wër ba wóor mooy fukki doomi aadama ak juróom-benn ñàq nañu seen bakkan gannaaw fitna yooyu lee Alpha Condé moom delloo si xel yi di wax ku ne daal na fexe ba dem ci nànk ci jamono jooju it États-Unis moom lenn rek moo ko ñor mooy ñu fexe ba bu ñuy siiwal li tukkee ci mbañ gàcce yi yëpp tegu ci yoon Vox Populi di xamle ne yooyu la manifester ñu nemmeeku ca Conakry law na ba file ci Ndakaaru ak ñoñu sëlu Daleen Jàllo yi ñoom nag dañoo dem ci seen ambassade bi nekk ci Ndakaaru bilan bi nag mooy ñu bëri ñu ci am ay gaañu gaañu ginnaaw seen jàmmaarloog takk der yi am na it ay oto yu bëri yoo xam ne jot nañ ko faa yàq ambassadeur bi ci boppam waa BIP ñoo ko fa génne yóbbu ko feneen tey ci firnde yooyu nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci Conakry ak waa tribune fukki manifestant ak juróom-ñaar ñàkk ci seen bakkan ak it benn policier CEDEAO dafa lajj ci liggéeyam bu ñu sukkandikoo ci waa Dakar Times li ko waral mooy jalgati yoon bi nga xam ne moom la Alpha Condé def jëmale ci déggoo bi ñu amal ci wàllu démocratie ak joxalin bu sell jëmale ci wàllu xeex lépp lu jëm ci wàllu firna ci CEDEAO lii quotidien di ñu xamal ne mbiri doy na waar foofu la ca ak doomi aadama yu bëri yi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan bi ñu génnee résultat yu njëkk jëmale ci élection bi ñu fa doon amal ci dibeer bi ñu génn lum néew néew juróomi doomi aadama teg nañ leen loxo file ci ndakaaru ginnaaw manifester yi ñu doon amal ki seen ambassade direct news ne li ko si jaaxal nag mooy ndaw yi ñoo ne ci kanam wàcc ci mbedd yi bu baax a baax libération li ko soxal tey jile mooy waxtaane ñu mariage bi nga xam ne moo amoon ci diggante borom ñaari tur yi libération dellu si bu baax a baax ci wàllu procès verbaux yi di jox kàddu ki nga xam ne mooy M Diaw nee na daal ki nga xam ne moo waroon doon ab borom këram njàngam daal moo ko war ci guddi seetu bi am na benn élève boo xam ne ci lycée de la Fosse lay jàngee ak benn agent de sécurité boo xam ne ci université Cheikh Anta Diop la ne ñoom it teg nañ leen loxo ñoom ñëpp fi mu toll nii ñu ngi ci biir kaso te dañ leen yóbbu ci kanamu juge bi àjjuma ak jàmm mariage diggante borom ñaari turi bi amoon ci Sacré Cœur 3 extension soxalit les échos ñu ñuy xam le ñaar fukki doomi aadama ak juróom yooyu nga xam ne ñu ngi leen di tuumal na sa dul noonu ñoom ñëpp ñu ngi ci biir kaso bi dossier bi sax yóbbu nañ ko ca flagrant délit stade le quotidien du sport du ñu waxtaanee wàllu Real bi nga xam ne dafa am am mbetteel Liverpool moom liñ doon xaar ci moom jot na ko def City mucc ayib la def waa sàdd ñu waxtaane it wàllu Bayern na jox kàddu ki Zidane lenn rek moo leen soxal mooy gën a amaat doole Sadio Mané bi gaañu ci oomam nag moom du bokk ci jongante équipe am ak Ajax ñu jeexale koog waa sunu lomb bi waxtaanee wàllu CNG mébét bi mooy mbëri mën a bëre ba ñeent fukki at ak juróom-ñeent ñu jële ko ci ñeent fukki at ak juróom bi mu woon waa sunu lomb di ñu xamal ne pare nañu ngir sàkkuteef bi nga xam ne moom la mbëri yàgg am ñu jëmmal ko lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm Bonjour. Le report des locales se précise avec les retards dans le lancement de l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que constitué comme l'une des revendications posées par l'opposition pour prendre part au dialogue lancé par le chef de l'État Macky Sall et étant l'un des premiers points à avoir obtenu l'unanimité de l'ensemble des acteurs, l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral générale ne sont toujours pas effectifs. Le confrère de l'avenue Bourguiba informe que l'USAID, qui est d'accord pour financer le dit audit, cherche toujours un exécutant local indépendant au moment où l'Union européenne, disposée à mettre la main à la poche pour l'évaluation du processus électoral, s'en tient toujours à son processus jugé relativement long. ce qui pousse le confrère à soutenir que du coup, le report des élections locales prochaines se précise. Le chef de l'État devrait incessamment prendre un décret prorogeant à nouveau le mandat des élus locaux, selon Sud Quotidien. Les Échos donnent la parole ce matin à Mamadou Dieng, leader de Arc-en-Ciel et membre du FRN. Il déclare "L'opposition s'est fait piéger par le dialogue. C'est avec un goût d'inachevé que nous avons terminé les travaux, mais le plus grave, c'est que nous révisé, ajoute-t-il dans les colonnes de Les Échos. L'AS affiche à sa une ostracisme, mépris, impartialité, refus d'audience du ministre du Travail. La CNTS-FC déclare la guerre à Samba Sy. Cheikh Diop, qui en est son secrétaire général, met toutes les sections en ordre de bataille à partir de samedi. Le ministre Samba Sy est dans le viseur de la CNTS-FC de Cheikh Diop et il est accusé de rouler pour Bahaw Jong qui est en conflit ouvert avec finalisation de la stratégie nationale du développement industriel vers la fin d'une industrie à la peine se demande 24 heures. Revenons sur le Conseil des ministres tenu hier mercredi, le confrère renseigne que le chef de l'État, le président Macky Sall, a invité le secteur privé à relever avec le gouvernement le défi de l'industrialisation au moment où le témoin quotidien relate le retour du Barça ou à la Barsac quand la jeunesse prend le large pour réussir ou mourir. Selon Abim Ndiaye, psychologue, le discours politique n'est plus audible au sein de cette jeunesse frappée par la détresse. Contestation dans la rue des résultat de la présidentielle en Guinée, violents heurts et des morts, rapporte Vox Populi. Le gouvernement annonce neuf tués, Dalein en dénombre 16. Alpha Condé appelle au calme et à la sérénité alors que les États-Unis appellent à garantir l'exactitude et la transparence appropriée dans la publication des résultats. Et Vox Populi les manifs se prolongent à Dakar avec les partisans de Cellou Dalein Diallo, partisans qui prennent d'assaut leur ambassade, violents affrontements avec la police, des blessés enregistrés et des véhicules caillassés. L'ambassadeur est même exfiltré par la BIP. Parlons toujours de ces violences post-électorales en Guinée-Conakry avec Tribune. 12 manifestants et un policier tué. Cellou donne ses chiffres. Alpha calme le jeu. La CEDEAO n'est plus crédible selon Dakar Times avec la violation d'Alpha Condé du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance relatif au mécanisme de prévention des conflits. Le quotidien informe que la Guinée s'embrase. Plusieurs morts après la publication des premiers résultats ont été Au moins cinq personnes arrêtées politique revient en détail sur les lendemains incertains après la présidentielle en Guinée, avec notamment les ingrédients du chaos et donne la parole à Cellou Dalein Diallo qui déclare, je cite, J'ai obtenu 52% des suffrages et Alpha Condé soutient que si la victoire me revient, je reste ouvert au dialogue. Fin de citation. Guinée, Côte d'Ivoire et Nigeria sous Les morts se comptent déjà, estime Direct News. Sept morts en Côte d'Ivoire, dix morts en Guinée et la répression policière fauche 20 personnes. Au Nigeria, la jeunesse tient la rue selon le confrère. Libération s'intéresse à l'affaire du mariage entre homosexuels et entre dans le secret des PV. M. Diao révèle que son futur mari l'a trompé le soir du mariage. Un élève au lycée de la Fosse et un agent de sécurité à l'UCAD dans le lot. Libération informe que tous placés sous mandat de dépôt, ils seront jugés en flagrant délit. Vendredi, l'affaire mariage homo à Sacré-Cœur 3 extension l'ARS. Les échos, tous les 25 gays en tôle. Seul l'acte contre nature finalement retenu contre eux et le dossier passe en flagrant délit. Les pièces à conviction sont sous scellé. En sport, SAT le quotidien du sport titre ce matin sur Real surpris, Liverpool assure et City renversant Bayern départ canot du champion. Super Coman et les Bavarois roulent sur l'Atlético. Zidane déclare trouver ce qui nous amènera à redevenir fort. Touché au genou, Sadio Mané est obligé de sortir contre l'Ajax. Terminons par Sunu Lamb qui nous parle de l'âge limite des lutteurs. De 45, l'âge de la retraite passerait à 48 ans. Selon le confrère, la nouvelle équipe du CNG aura à poser des jalons importants pour la saison 2020-2021. Les autorités de la lutte seraient prêtes à satisfaire une vieille doléance des lutteurs qui ne cessaient de fustiger l'âge de la retraite à 45 ans. C'est tout. À vos journaux et